nu jëkk waxtaan tuuti ci tawat ji nga xam ne moom la yàlla indi nu bëgg a tàmbalee ci li ñu ne suñ ko waxoon ne aw ay foo ko dégg ñaanal yàlla mu fay ak lu mu la sori sori bu naagu ba defe ne mënta ak si ci yow tawat ji nag bañ koy door dégg ci Chine ak léegi lee mu yàgg lool bi mu ñëwee ba jegan itam teewul rek am na ñoo xam ne gëmuñu ne sax tawat ji am na ak li muy jege-jege waaye tey ji nag moom mel na ne ñépp gëm na ne am na bu wér a wér ku gëmutoon ne am na it léegi gëm na ko ab julit nag la ko war mooy fu mu toll di wakirlu ci yalla boromam ni su borom waxe ne wa llahi falyatawakkalul mu'minun wakilu nak luma taxam la moy gannaaw bi nga wolo ci sa xol ne lepp lu am yalla yalla yalla moy def di dindi gannaaw bi nga gëmeeloo ci sa xol nga taxaw tem ci la la war cik fàggandiku ak cik wattandiku lépp loo bëgg seet lañu ne moo koy maye nga jàpp ca bu baax ba mel ne wut wut rek moo lay tax am lépp loo ragal itam nga seet lañu ne moo cay musle nga jàpp ca bu baax ba mel ne muslu ngay muslu ak japp ca lolé mo lay musal fekk na nak ci sa xol mom jappon nga ne yalla mom rek moy joxe moy xagne moy musle daw taxuta raw wut batay taxuta am tawat ji fi mu nek limi yaatu yaatu ak lu mu la jage jage bu yalla ne bokko ci du la dal mukk mukk ku yàlla ne war na koo dalit mana rek mu jot ko du ca mën a mucc buy waxee nag ne suñ tuuba moo ne woon tuuba allahu taala min kulli makruhin wa maxuuf tuuba yàllaa ko aar ci lépp lu ñu taamuut ak lépp lu ñuy ragal batay mo ñaanon ci matlabul fawzayni ne wan fil wabaa wal balaya kullaha anha wa tayyibu shurbaha wa aklaha ñaan yalla musal tuba ci lepp luy xeetu mbas ak xeetu bala ñu ne señ bi ñaanal lool te ñaanum señ bi mom lu yalla nangu la lolou kat wërta tax nu baña danoo war a roy bu baax ci sëriñ bi ci boppam ba mu waaj yoonu géejam googee te yonante bi feeñu ko jox ko ndigal ne ko defal naa la kaaraange loo xam ne daray lor mënu koo bët ba si ci yow teewut dafa jàpp ci sunus ngën ji mbindeef te mooy fàggu ba noppi nag amee xaalam te mooy jàpp ne lépp nag yàlla attawakkulu xaali wa iktisaabu sunnati fa man tawfa an xaali fala yadhuf an sunnati sama sunna mooy jàpp ci pàgguteef yi wakkilu nag ci yàlla xam ne lépp mooma mooy sama mbir loolu la sëriñ bi jàpp jëfe ko ba ko yonante bi defalee kaaraange loolu teewut nee na ngoon ga nga xam ne daa bu xëyee rek dem ca yoon wa ngoon googee ca la def xasida hasbunallahu wa ni'mal wakil te tàmbalee ko xamittu may asimuni min ad darar bu mu nekkee ci yoon wa itam ba àgg ca jeewal te sefaak kilifak noon ya gis nga mu ne dama dumooyu wax bismillahi rahmani rahim juróom fukki yoon kilifa googu daal di nooy daal di walbatiku dem ci ëllëg sa di dibéer mu yendu kokk itam fa la tàmbalee waye asmaaw ahli badr di ca doole aar boppam di wax ne yàlla moo ko booleeku ba ahlu badar ñooñu waaye def na xasida gi ngir dolli ko aaru tudd seeni tur ak ñaan yamu ca ñaan ba tey booy jàng irwaa un nadim da nga gis sëñ mat laamin jóob mu naa dégg naa sëriñ bi mu naa ba nekkee foofee musuma bàyyi benn bis dog bi ñuy wax xisbul bahri te al imam sadili def ko señ bi ne musu suko bayyi ben ben bis señ mat lamine ne ni ko señ bi takko noné da nga ci xamene dog bobu lo am am dara jala ndax niko señ bi yittewo ak nam ko fonké da nga gis batay señ mat lamine ne mam cerno mi nga xamne bo nekkon ci gannaawum dafa saxalon bis bu ne suba ngon ñu wàcce ab kaamil jàng nag salaatan biha min jamihil ahwali wal afat junni yoon mu ne nag kaamil bi moom bi señ bi sahal itam dañ ko def suba ngon waye nak saxal giñ ñu saxal salaatu boobu salaatan ci ko def junni yoon man naam señ be ko diglé won man naamit maam ci bopam moo amul xir ci sëriñ bi dellusi ci jàmm yàlla aar ko delloosi ko tax mu saxal loolu mu ne itam maam ceru daawutoon ndaw lu sawar lu ragal yàlla ku baax ku ñu tudde sëñ Sàmba Astu Jóob mu bokk ci waa kokki moom la maam cerno tànnoon mu jiite salaatu boobu buñ koy def junni yoon kon nag nu itam nanu jéem roy ci sëriñ bi bu baax a baax ci bari watandiku aku fagandiku muy ci zahir muy ci batin bu dé ci zahir gi mom fagandiku yi yomb na ndax tawat ji ñu wax ne mom lañ koy fagandiko mom lañ koy watandiko jafé wut kon nak nañ def yoy yep kem sunu katan waye nak la ca mata gëna japp Moy samonté la hadis bo xonné le, tawat ji walé bu xewé ci barab ku fa nekkul woon bul dikk diko fekk ci ku fa it bul dem ngir diko daw nga xamné kon ku nekk ci barab loolu feeñ fa togal rek te rafet njort ci yàlla bu fekkee dem nga bu mënu laa ñàkk génn nag da ngay jéem a seet ñay saytu wàll ñu seet la ba xam nga tawat ji am ame woo ko su fekkee ne ame nga ko toogal faju bul dem bu ne ame woo ko nag te mën laa ñàkk dem nga door dem nag te boo àggee fa nga jëmit nga wan leen kayit yi nga àndaale muy wane ne laata ngay ñëw dañu laa seet ba xam ne yow mi amewoo jàngoro ji boo xëttee ndigal nag jekki-jekki daal di génn rek te seetuñu la na nga farlu bu baax boo àggee fa nga jëm nga xamal ña fa nekk ne leen barab sàngam laa bàyyikoo ñu daal lay gaaw saytu bu baax ba xam amee nga fa jàngoro ji am amiwoo ko fa loolu moo gën dal di tambali jaxasok doomi adama yi lolu ak walé man na ca am lolu moy xéeti fagandiku yi ci waluk zahir budé ci batin nak nu fonk lol xéeti ñaan yi ñaan mom moy gannaayul ku gëm yalla bar na nak ay paguteef yo dafa ñëw ci alquran ak yu ñëw ci addis rawante na ci xasiday sëriñ bi ak ñaanam bari na ay pàgguteef lool yoo xam ne yomba jëfandikoo la bu dee ci ñaan yi te bokk ci alxuraan mën na noo tàmbalee ci addisu Abdullah ibnu Xubayb mu ne woon moo ne ma woon moom ci bopp ko woon suba ngon jangal qul huwallahu ahad yett yoon qul a'udhu bi rabbil falaq ñett yoon qul a'udhu bi rabbin nas ñett yoon yalla musal ci lepp lepp lepp yalla fegal la lepp lepp lepp moy قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمحوذتين حين تمشي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء ولا تكفيك من كل شيء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح أنا في fu قليل ko teqalee ci yenn hadith ñu ne loolu boo ko defee suba qul wallahu yoon pala nas bu ci nek ñett yoon loola lip, lay ar ci lepp lepp lépp ba ngoon boko defé ci ngoon gi tam lola lay ar ba wat lolu day lu jappandi lol bok ci alquran te hadith bi wëral ko hadith ci bopum nak mas na ci hadisu usman ibn affan bi nga xamne da newon قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح usman yalla ko yalla doli ngeureum ak leer mo ne yonante bi mo ne won bepp jam bo xamne waxna ci waxtu suba bismillahi allazi la yadru joju faaw rek yalla musal ko ba dara dara dara duko lor kon ci takale bismillah ji boko waxe ci suba ñett yoon dara du la lor ba ngoon boo ko waxee ci ngoon dara du la lor ba subawaat am na ku ñu wax abaan nag jële woon addis bi ci Ousmane daa ko jëfe itam te teewul li ñu wax faalij maanaam li xaw a nuru paralysie genn wetam dee paralysie gu jàpp genn wet dal ko benn waay di ko xool xool yi nu xanaa yow li nga nett li daa wérut ndax yaa ngi ko daan jëfandikoo teewut lii dal la abane ne ko loo may xoole waat naa ci yàlla ne lii ma ne usmaan moo ko nettali yàlla xam ne ne la usmaan tam li mu ne yonante bi moo ko wax dëgg la man nag lii ma dal mooy dama masa mer ba fàtte koo wax fàtte ga ko fàtte wax nag moo tax dal ma kilifa gi ñu wax da ko daan jëfandikoo ne am na boo xam ne jiit dama fett waaye dama ko fàtte woon a wax rek seetu naa ne daal baa koy jëfandikoo ba léegi dara musuma dal waaye nag boobu yoon ma fàtte ko ba jiit fett ma looloo tax ñu naa lu ñu ne boo ko defee nangam du la dal bu yàlla naree ca dëgg-dëgg mu dal la danga koy fàtte bu dee lu ñuy wax doo ko wax bu dee lu ñuy def doo ko def ida nazala al qadar amiyal basar su dogal bi wàccee rek bët yi gumba mooy kooka du gis na muy def ba mucc faaw dogal bi wàcc ci kawam ba tey su xawlata daa wane ne bara boo mën di nekk rawante na boo ragalee dara na wax baat bii na nga wax Badi, yi ba ba nga fay bàyyikoo rek dara du la fa lor mooy aawdu bi tammati min sharri ma xalaq mom lu yomb wax la benn waay ñëwoon na ci yonante bi di ko jàmbat jiit ji mu ne ko boo waxoon loolu day du la fett loolu kon mooy ci alquran ak hadis bu ñëwee nag ci fi nga mbindum sëriñ bi la ma nan koo tàmbalee ci yaa rabbi bil mustafa al muxtaari mi mudari jooju nga xam ne sunu kilifa gi danu koo dénk bu baax nu war koo fonk te moom sëñ bi bam bindee bismillahi rahmaani rahim da caa tegoon wa alaykum salaamu wa rahmatullahi wa barakaatuh fahaakum haadihi al abiyaata shifaan min kulli daa'in وحسنا حسينا من مكائد جميع الاعداء نه فبلين بيدي ديكو سافارا مبولم خيتي جانغور ييب تف كو ييت موي كارانغي لولين دي ار سي مبولم تخي نوني كون مسلم كليفا واخي ني جابلين كو وارنان كو فونكو بو باخا باخ ba tey xasida waqaani xawidun xaaxirun jàll maanion moom daa boole di pàggutéef maanaam lu ñuy wattandikoo di ko fajo yitam ci ku dara dal sëñ bi nee na woon xasida waqaani lu mu mënta def ci nit baa mu dindi ko ca kon def ko ca walla dindi ko ca dana jafe ñu ne itam mas naa gis xasida waqaan wi ci téere yi soxna astu gaawaan doomam yal na ko yàlla dolli ngërëm ak leer sëriñ bi ci boppam jàng xasida gi ba noppi ne ko ba ma nekkee ci liggéey bi yóbbu nañu ma ci barab boo xam ne am naa fa ab diir am ñu ñu ma booleel am na bis yegg naa ci foo xam ne mënuma wàcc ci suuf ci kaw lal bi laay jàppe ci laay jullee sunu boroom wax ma ne wallahu minan nas ma dal tambuli xasida gi ba yegg ci mahar rusli wal mala gisatuma lu bokk ci moom wala gisatuma dara lu bokk ci loola ba tey wa kaana xàqan bokk na ci gëna mata fonk lool lool ku man rek nga di ko bis bu ne benn yoon serigne fadlu mbacke nenañu masna fekk serigne touba muy jang wakana haqqan serigne touba ne ko xashida gi lu muntu safara amut nga xamne serigne fadlu mo ñew fekk serigne touba ci bopam muy jang xashida kana haqqan serigne touba nak mo ne ko xashida kana haqqan lu mënta saafara amut ba tey sëriñ Tuuba mas naa jàngulu xasida wa kaana xaqan yetti yoon dañu ko jàngee mu ne bari na ay wu ngeen di dégg ci àdduna te jàngu ñu jàng xasida gi moo tax yegsiwul fii kon nag nun nanu koy bari la jàng ndax yalla jele fi tawat ji képp kum dalon yalla may ko wér ak jàmm te fum mu rek mu bañ fa ag patay allah allahu xayun samadun wa baqi dañu da gis ñukoy bindale ci mindi serigne bi melne moko def gannaaw bi ñu ne doomam serigne baram bakke moko def gannaaw bi nak ñu xamal mané geneen kilifa moo ko def ndegam nag sëriñ bi waxoon na taalibe yi ne leen jox naa leen digal ci ñaani gaa yu baax yi ak seen i fàgguteef lu ngeen ci bëgg a jariñoo ngeen jariñoo ko ci kon moom ndegam lu gàtt la yomba mokkal ku ko mën na fexe ba mokkal ko ndax la wax ca mu gëne ko mokkal mucc ca bala ba ba tey xisnul abraar nee nañu bis boo ko jàngee bu asamaan suuf doon taqaloo itam yàlla may la foo jaar ba mucc faa war a yow nga racc njariñ yooyu ñu wax nag ci yenn xasida yi mas sa ko seet ci mbindi sëñ àlla ji mbàkk yi nga xam da ci doon dajale njàngale yi sëriñ bi yam daan def ci wax yi wala yu leer leer mbindam yooyu moom suñu àllaaji yu mat fonk la bu baax a baax bu leen jàpp ne rek suñu àllaaji mbàkke day taalibe bu xiir rekk ci sëriñ bi ba du seet la muy bind lu mu jot rek bind yi muy bind da koy gëstoo ko segg nett bu ne sax wuutal ko nattukaay boo xam ne ca la ñuy xàmmee fa mu toll ci ak wér danay wax wér na lool di wax na kese di wax wër na maanaam mel na nga ne wër na fu di wax siiw na di wax itam loolu mooy gàttal gi maa ngi dénk bu baax mboolem mbokki taalibe yi ñu fonk téere suñu allah ji yooyu nga xam da caa dajale njàngalem sëriñ bi ci wax yu leera leer yoo xam ne sëñ bi moo ko daan waxee noona yàlla def na waxi sëriñ bi moom lépp leer la te daanaka saa yoo ko déggee rek daal di xam ay waxama am du ay waxam ba tey am na yaari ñaan yu sëriñ bi yoo xam ne wesar lañu daanaa gis sax ñu koy móol di ko tasaare leen tuddee ñaari docteur ñoom itam manees na leen a fonk di leen jàng suba ak ngoon bu ci nekk ñetti yoon benn yoon baax na sax waaye dañoo taamu ñaan ñu di ko baamu te ñetti yoon moom digg doomu na benn bi mooy allahumma yaa man wa bi kitaabika wa bi rasulika wa bi sirrika almasuunil mastuur صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأغنني بك عما يحوج إلى أوفى أو إلى دكتور may benn bi bi des mooy yallaahu yaa raxmaanu yaa raxiimu yaa mugni yaa dal samaawaati wa yaa dal aradiina laka alxamdu wa laka alshukuru waltanaa'u ala istighnaa'i bika xan duk طور النصارى وحن أوفل بياضين لك الحمد ولك الشكر والثناء على استغنائي بك حن دكتور النصارى وحن أوفل بياضين باتي أمن يالي بيد يو خمني yàgg nañ ko bindaale ci mbindi sëriñ bi mën nañ ko xoolaat ba xam moom it sëñ bi da caa ñaan bu fekkee ay waxama yàlla dàq lépp luy mbas ak balaa jëmale ko ca noon ya mooy anta rahimu samadu al muminul almuhayminu almannaanu ikfi lbalaa wa jumlatal wabaa'i wa suq ila al a'daa'i kull daa'i kon daal pàgguteef yooyu manes na leen a saxoo te bañ a ne booy ñaan nga ci amuk wóolu akuk dogu te bañ na rek naa seet ba xam li ñu wax ci lii am na ceem déet loolu dana tax ñu xañ la la nga ca doon séentu ñaaral bayit nag ñu jàpp ne moom niñ ko waxe woon su dogal bi ñëwee dëgg-dëgg faaw yàlla dala koy fàtteloo ba mu indi beneen sabab boo xam ne mooy tee la nga doon ñaan nangu loolu moom ngi dellu ci yàlla borom bi وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين إلى يوم الدين